daan jël bu rëy bokk na ci lu waral tey ma déplacé wu fas yéene séq ak moom waxtaan waxtaan ak moom ci carrière am fi mu jóge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm kan mooy Yankoba victoire bi mu jóge fan la ko jëmee instant bi may wax ak ñan ñooy ses potentiels adversaires dans l'arène et tout et tout et tout sama gars yi fii ci euh, grand fii ci Grand Yoff tey seen émission victoire après combat Yankoba école de Père Diène mooy sama invité mbor maa lay ziar doolu ziar di la nuyu bu baax waaw maa ngi nii rek sama gars yi ñu dalee

da nga ne Yankoba Yankoba mooy sa tur dëgganta waaw Ibrahima la waaw waaw même waaw Yankoba waaw comme léegi gëm gëm sama bopp rek bañ a tuddee sama bopp beneen mbër loolu la rek la waaye imposé sama bopp waaye dama gëm sama bopp sa histoire lan lan dugal ci bëri waaw bëri sama benn grand ku ñuy wax Fabis Mbaaco ma dama doon football mais dañ gars yi ñu doon tàmm di fu bëree koñ koñ am benn jour mu woo ma ne ma kañ nga ma tegal nga bëri loolu mu dugal si làmb waaw. non non non da doon dugg bëre sax dañ doon bëree gars yi ñu bëre koñ koñ quoi xaalis xaalis ëffal ëffal waaw koñ koñ nii li am koo xam ne léegi sama waay la quoi alaaji moo daanoon gars yëpp léegi si lañ ma tegal nag man ak moom ma bëre nag après si la brise commencé ma dugg nag commencé di bëre ay mbapat ñu foo waaw ba affaire bi nga foowee waaye mu doon dëgg mbapat la waaw ah, mbapat la waaw mbapat comme rek waaw ay combat mais yaaguma yaaguma fa quoi yaaguma si mbapat bi tamit benn defee laa sàmm benn waaw ay victoire waaw def ay victoire adhéré écurie euh, jë jën a taxawal ma moo tax. ma gën a ma ma ñëw waaw jën kay parce que ma naan dama naan bëri mbapat mu ñëw di ma conseillé fekk boobu nekk moon si écurie bi. mën mhm. ma xam man bu nekk borom baax loolu moo waral ma nekk ma ñëw si écurie bi. non Aseg naa lañ dëkkoon Kastoor bi waaw. Kastoor fi dëkkoon. foo mu may mu nekk sama gaañ ma dem su may jun waaw yow mu fay dem tamit daanaka lépp ñoo lu si bëri ñoo ko def si man waaw def nañ ci lu bëri ko sumaawo ñoom grand père ñoom maxu waaw di nuyu tam nañ lu bëri lu ñu def si man waaw te mu fay jógee tamit dafa rafet ñëw naa waaw paa ñaanal na ma waaw dara ñaawul sama premier combat ba ki laa bëreel euh, Boy Gueye. Boy laa bëreel. kii kii di Balla waaw maa ko daan par Kaawo. Kaawo waaw. boobu moo bëroon grand combat ba ak Boy Yaraax. waaw waaw boobu la waaw. bu ma son premier combat arène. mu door ko mu daanu. <laughs> loolu la lamb affaire góor la rek. deuxième combat nga am am Ipo. kan ci Ipo waaw boobu waaw. boobu tamit mu demee. daan. jàpp daan waaw troisième nga am am euh, kër gu mag. waaw mais. kër gu daan. moo ñàkk waaw moo a waaw waaw moom moo daan waaye ma daan lëz euh, ma bërek kii léegi après waaw. waaw Zé Baye Fall. waaw daan. waaw ah. waaw mais <laughs> daan stade bi. Ah, stade bi ñëpp stade bi ñu ma faral ñu ma faral yëpp. xam nañu maa daan quoi ñëpp dañ ko doon yuuxatu sax maa def action ba maa def action mais xam nga waaw moom waaw mais xam nga arbitre ay nit lañu ay nit mooy jum quoi mais stade bi ñëpp ñu ma faral ñu ma faral yëpp ñëpp dañu doon jimale dañu doon am nañu doon wax sax arbitre bi sax mun ma ko wax fii quoi waaw yow yaa ngi yaa ngi fa woon waaw yaa ngi fa woon mooy loolu mooy loolu kii mooy loolu ah, waaw waaw daan waaw la jox waaw xam moom nit la moom ay nit lañu te nit moom motul. mais daf ma recours après. non ma recours. daf ma recours da ko jaru da ko da ko da ma toj un an ma quoi. waaw waaw fin de saamaan laa bëreel. saamaan benn. saamaan bu baax laa bëreel. maa ko daan par décision médicale. ma raag moom waaw lépp mënatul mënatul waaw nga arrêté combat bi. ñaata victoire la 4 victoire wala victoire. 5 victoire. waaw. bi bi da nga kaa bañ may défaite. non <laughs> non non non moom xam moom moom moom xam na ne moom daanu. moom xam na ne daanu parce que a sax wala moo bañ a sax arbitre bi moom jëmiloo si daful dara sax dafa taxaw nii mooy loolu moo xam na ne daanu na mais arbitre ay nit la loolu la quoi waaw waaw nit day juum noonu la fa demee waaw kon waaw kon samay morom waay waay waaw waay dëgg la dëgg la waaw waaw ñëpp loolu lañ may jëwee quoi. waaw lañ may jëwee. booy dañ laa waaw léegi doo mooy loolu gars yi am na ñu nekk sama ginnaaw lu ko delee ñoom bii bi. waaw ak ñoom jiili. waaw ñoom ñoom Toneeg. waaw waaw ñoom Amet. ak Amet Marie Rose. waaw <laughs> gars yi waaw. waaw ñu sama ginnaaw quoi. mooy mooy loolu ak ñoom Unga gars yi waaw mooy loolu quoi gars yi waaw mooy mooy loolu mooy loolu quoi gaa ragalu fi dëkk moom. émission bi dèjà man maa la woon ne la maa ngi ñëw jël si la mais bu desoon si yow rek doo ma woo man maa la woon ne la mbër nga ne ma naam parce que man dama lay suivre mais mësuma la gis ci média bi ma woole ne la rak ji nga ne ma naam ma ne la bëri nga daan damay ñëw siiwal loolu mais bu desoon si yow ak yow kese xam naa da ngay bëri daan nekk fee sëruxu dangaa baax rek dangaa baax dangaa baax yéene ma xam nga nit moom ku si nekk ab yàlla fa am nu mu la bindee quoi waaw dangay am na wax da ngay bëgg forcé sax mais mooy loolu waaw boole si réew waaw mooy loolu mais maa ngi si quoi waaw ah, <laughs> waaw maa ngi si waaw waaw waxtaan après maam Thierno maa lay ñu ngi dellu siyaar yaram ñu ngi dellu siyaar man maam Thierno bu xaar yàlla grand waaw ndaamal daaru waaw waaw man la waaw ñu ngi siyaar ñëpp waaw waaw fii mooy daara ji waaw ñun moom daanaka ci lañ nekk momit ci la nek mu nek boy bu yaru boy bu neex andal parce que moy li nga wax rek ñun ñepp mom lañ moom daanaka jéewuñ ko sax dañuy taxaw di ko wax del yeengal mhm. mais nak man lima neex ci mom moy bandi géew la du tapet wa du tapet Mom mën na ñëw ni nga xol ko yaakar ne moy loolu mais bu duggé ci bir man lamb yuñ mus and yépp man ak mom, musu moko ne ni ngay def wala ne la depuis mbapat ak lépp ba tey booy musuma ko ne lii la wala lële la man li ma neex si moom mooy dafa am sañ-sañ gëm boppam moom da ngay dem moom mu ne la soxlawul sax ngeen may conseiller xam naa li ma war rek def damay bëre damay daan waaw léegi nag euh, ma delluwaat di wax ñu ngi dem parce que dama juum sax dama yéex a nuyu gars yi di nuyu sama gars yi waaw mafia bi waaw fii nag mooy terrain jiboo waaw fii mooy suñu base waaw xar yàlla ñun nee nañ ko wàll yaan fekk sa dëkk tëggul ñun nag instant bii nii dafa jot ñu tëgg parce que ànduñu kenn ku dul kuy représenté xaar yàlla gis nañ ko nag ci jëmm ji te soxlawuñ ci dara lu dul autorité yeeg ñëpp ñëw taxaw ci jàpp ci parce que ñun suñu problème mooy booy bi day am combat sax pour ñu jaay benn bloc problème la parce que fii ñàkkuñu fi ay autorité am nañ fi lu nekk ñàkkuñu fi dara comme kii pare na moom amoon na temps sax boo xam ne dafa xawoon am tuuti retard ci làmb parce que dafa jékkoon jékki nekk ci leneen xaw a mel ni lu xaw a wan ginnaaw làmb mais mënul bàyyi làmb bëriwul loolu sax moo ñu xaw a am moo ñu xaw a tardeel tuuti mais moom dépassé woon na fii parce que am na mbër yi ngay dégg jamono jii moom instant bii nii sax normalement combat yooyu dafa waroon leer ak ñoom mooy booy yi ngay dégg ay ñoom euh, liis Ndiago ak booy yooyu yëpp Liss Ndiago mel na non lu garaaw laa lay wax. wër na Serigne Touba. non dama xam li ma la wax. waaye moom ak ñeneen moom ak ñeneen. kii dafa am retard ci lamb. waaw waaw d' accord naa bu la neexee non d' accord naa ci d' accord mais kii yi ngay gis jëmm ji ngay gis. jëmm ji ngay gis wër na Serigne Touba yàlla moo dama du ma caaxaan ci ay waat. jëmm ji. waaw couronne teg man gëm naa ne couronne mun na tegu ci bopp bi. parce que lu tax. couronne bi mu dugal ko xaar yàlla dugal ko. Oh, dama dama ko gëm. la couronne roi des arènes. waaw déggoo man la looloo gën a ndaw xam nga lu tax. dafa am li nga xamante ne dafa dafa manqué dafa manqué ci ay mbër ci xaar dafa ne ci moom. mooy sañ-sañ fit xam nga man lu may lu may jooy ci moom mooy entraînement kese bu amee entraînement bu leer. barki boroom daaru ku taxaw ci kanam da lay fël jàll man leer na ma bu taxaw ci kanamam da lay fël dara naan xajal ma ma jàll déggoo ma de déggoo ma la xaar yàlla ah waaw déggoo waaye xoolal bu la neex nga yóg ma vaar man non kon jeex na gars yi ngi naan booy bii ak Liss Ndiago Ndiago or bi tey combat bi bés bu taxawoon combat bi tey bës bu taxawoon mook Ndiago bi ñu daakaarloo ci biir géew booy yi sa sa lii nga wax fii nii moom la ñuy génne waat vaar ko su ma déggoo su boobaa man maay répété waat li ma waxoon. Ah, damay ñëwaat nga répété waat déggoo ma la jëmm ji jëmm ji jëmm ji dafa xaw a am dafa xaw a am tuuti dañ ko xaw a négliger tuuti ci wàllu wàllu jàppale. mais bu amoon jàppale bu leer ni booy am jàppale bu doy day dépassé fii man gëm naa loolu. xanaa woo ba ci làmb jii nii nii nii sax làmb ji boo xoolee li ñu entraînement sax dañoo yéex a sax jóg. dañoo bii bi mu dañoo yéex a jóg. wër na sëriñ Touba man moom Modou. ki ñuy ne borom ndel bi xam nga ko ñoo amul luñ ci dajul mais bu ñu amoon tuuti jàppale rek. ci ci ci autorité yi. ci autorité waaw autorité. Grand Yoff ak ñëpp ak ñëpp. mais gars yi xaw man nag du ma du moom laay wax toujours jàppale ma doo forcer nit ki ne ko danga may jàppale force mais yaay wane li tax nit ñi jàppale la te keroog boo xoolee lu mu lu mu lu mu wane esat kon kii jot na gars yi teg ko dal na xel. saison bi di ñëw la ñuy waajal. non ñëw na ba pare am am naa ci ñu ngi liggéey de. ñu ngi liggéey chaque jour. dafa leer de. mafia bi dal leen. bu seen lii nii ngeen foog ne bu duggee Diamaguène wala bu duggee Guédiawaye wala bu duggee Pikine wala bu duggee Yëmbal dana fa am dara bu dee loolu ngeen foog. billahi lu ci kanam raw li bët man maa ngi ñëw man sa pose mes questions li ci des sama yoon nekku ci ay booy grand yoo ay ragal du fi dëkk ak yooyu noonu boo duggee Pikine Guédiawaye Diamaguène Yëmbal nee na ñoo moom làmb waaw mais xam nga xam nga moom la mooy li ma la wax sànq rek kuy waliyaan da fekk sa dëkk tëggul xam nga kii dafa dafa nekkoon sumbu jun sumbu jun dafa am li mu demoon jàngi foofu rek ñibbisi na bi mu demee fekk na fa jéen père keneen ak keneen ak keneen ñu sol ko lu mot sëkk dafa tarbiwu nag ni nga koy jëmm ji moo tax ma ne la fu mu toll nii fu mu toll nii non xam naa bi nga commencé wax sànq moo tax ma déglu dama la ne jàppale rek lañ soxla ñun bu ñu amee jàppale déggoo li ma la parce que dañu xam dañu xam li ñu yor ñun man sama jëmmu bopp wóor na yegoo man la waaye dafa am qualité yu mbëri amul moom yow sax gis nga ko ci moom yow yaa ngi koy wax sànq problème bi rek mooy li ngay wax te ku nekk ak yàlla lu la bindee mooy ñëw aalu di newul ci moom mais bandi géew la mais da incha allah non saison bi di ñëw caméra ñeme micro. saison bii di ñëw leneen ngeen di gis sànq rek am na jëmm jiñ si bi ma ci doon waxal. mais saison bi di ñëw leneen ngeen di gis bu bees tàkk. saison bi yow yow maam maam yow yow saison bi ñu jëm. waaw ba ñett ci lañ ci lañ nekk nii moom laa wax ni non non kat nga wax kat. waaw déggoo ah. li ma la wax ñu ngi ciy dox sànq rek am na ñu ma ci doon waxal. non le problème mooy li ngay wax ni promoteur yi dañ koy seetaan. déggoo ma la jëmm ji jëmm ji ma woo laaj ma damay jël numéro ñaanku jox ko mais man sama yoon nekku ci Fall démarché wu ma promoteur bi ma ne ma booy bi nga jëli woon Grand Yoff numéro am jël jox ngeen jox waxtaan déggoo ma la saison bu tijji woon suba suba suba wóor na yàlla pare nañ pour dem jël combat ci bis bi bëre ci bis bi kii toogul mu ngi entraîné non côté bi may wax maanaam bu dee attan nga maanaam su may wax xam nga dañ naan mbër bu ndaw waaw booy ay mbëru ndaw ay mbëru ndaw lañu mais seen combat dafa laaj xaalis waaw mais nag moom laa la wax xam nga bloc ticket yi xaalis la dégg naa la kaar yi xaalis la waaw regroupement bi xaalis la préparation mystique bi sarax yi yooyu xaalis la waaw moo tax ma ne la ba xam attan ngeen ñaari combat ci benn saison bi pourtant nag loolu nga fekk may jooy ni moom laa doon wax léegi ndimbal lañ soxla te fu mu toll nii am ñun ci jot a waxal te pare nañ pour jàpp ci buñ ci jàppee déggoo ma la saison te jëna ba pare octobre booy bi mooy mooy li la booy wax atteindre nañ ci 4 combats te lépp ndam lay doon. saison 2024 2025. atteindre ngeen 4 combats. lépp ndam lay doon 4 combats 4 victoire. victoire 4 bi day dugg ci day dafay dugg ci coono day bokk ci coono. mën la di nga ñëwaat fii ñu toog di ko wax. am ceer am maa ngi ñëwaat. yanku yanku yanku maam ceer na nag waaw wax na de na de xam naa nag wóolu na la wóolu na puneewam. mais limu engagé ni est ce que yow ñam nga ko confirmer mam Thierno limu engagé est ce que yow ñam nga ko confirmer nee saison bi ñu jëm saison 2024 2025 attan ngeen trois combats kee lee nek ci ginaaw lee nee quatre ci saison bi te mam Thierno nee bo amé le soutien qu'il faut saison bi bo amé quatre combats da ngay assurer quatre victoires yow lolu mën nga ko assurer. non lolu lu lu am la sax amul Thierno magum jëmal du wax banexu ba xanaan te yag na mo top depuis Mbabat. daanaka dañ naan moom daanaka moo ñu yar quoi mhm. moom xam na lu nekk si man mooy waaw dafa am lu ñuy jooy si mooy comme li ma wax rek mooy yar bi quoi mooy mooy loolu mooy te loolu ku nekk am yàlla mo ñëpp mënuñu wax waaw yàlla nu mu la bindee mais bu dee ak si làmm ba banday géew mooy loolu biir géew mhm. waaw leneen lañ wax quoi te man man loolu laa gis ne loolu loolu loolu moo mooy l'essentiel quoi moo ëpp solo moo gën mooy ñi di ñod yi nii bu ñu jugee dañuy nekk gaynde si biti mais bu ñu jugee si arène nekk muus man góoma loolu quoi quatre kii yi muy ni buñ ma ko joxee ba cinq sax wallahi ma assuré leen victoire ah, ma assuré leen victoire mais nag dinaa xool benn affaire maam xamul làmp non non kii football la xam kii naka jekk ma xam ne football xamal la moo tax ma ne xamul làmb ñëpp la fi bàyyi mu ne yow ak njaago or bi booy bu dëkk jàmm lool noonu mooy kooku noonu jàpp gars yi di dóor ñuy daanu liis njaago maam Thierre nee na da dugal ci Liss Ndiago yow. Ndiago mag la euh, paa la dóor moom papam la dóor sos sos nu mu dee sos. non waaye moom laa lay wax nii Liss Ndiago Liss Ndiago doyu ma galandiku wallaahi. Mm, c'est non mu doyu ah, non moom ndax moom moom. mu contre que mooy delloo avance. ndax yow ñeme nga non loolu loolu loolu loolu si biti la fanaane. da nga naan waaw wala waaw waaw waaw si moom la des wallaahi. Ah, si moom la des. mooy loolu Liss Ndiago mooy. moom la ñu mooy njaago or bi njaago or mooy booy bi dëkk a bëri mën a xeex zos zos zos moom zos na ko jur moom fi la nga boole ak morom tafa tafa gay dóor ko mu mu suñ kopp tafa tafa mbër da nga dóor si kopp mooy loolu léegi ah, mu daanu na fi mbër mu daanu ah, waaw mais ku mu dóor parcelle la duggoon mu daanu parcelle mais nit da ngay dangay booy dóor da ngay dóor morom mën a fecc mën a mobiliser ah, loolu loolu yëpp na jël loolu yëpp na jël mais loolu yëpp na jël mais mais géew gi géew gi maa ko moom quoi maay dirigé maa ko maay dirigé maay dirigé maay dirigé maay dirigé maa koy dirigé non waaw moom bokkuñ sa maa moom bokkuñ sa moom bu waaye lis njaago lis njaago lis njaago fatal ma foofu lu dul caxabal bi <laughs> loolu ban kele la gis nga. waaw da nga may limal 2 3 4 say potentiels adversaires promoteur ñu ngi a bëreel saison 2024 2025. mbër dafa mbër. waaw gënu ma gënu ma rafet palmarès. dafa am mbër dafa am mbër. ak ñang baalo ñang baalo tamit. benn bi ñang baal benn jël nañ faal ah, waaw mooy loolu ah. waaw waaw amul problème nan ñëw waa na ñëw looraa na ñëw Cerno nag yow nag gis nga yow maam maam Cerno gis nga yow terrain bi nga jàkkaarlool naka jekk ma xam ne yow xamoo làmb yow football ngay seetaan yow Laurent Ndiago dafa mer waaw waxal wax moom laa gën a soxla déggoo mën a la fu mu toll nii xam nga lii sax ñu ngi koy wax dañ koy may benn bës boo xam ne mu yaakaar ne waaw am na lagros léegi nag moom laa la fu mu toll nii nañ na Laurent ñëw man li ma lay wax déggoo mën la xoolal bu la neexee dee ma jël vaar saay su nekk kii dama ko xam man jëmm jii dama ko xam waaw déggoo mën la jëmm ji dama ko xam Laurent na ñëw soxlawuñu keneen moom na ñëw moom amul combat waaw dégale ay victoire. waaw daan daan Boy Plateau daan Bou Siteu daan Alliance Baldé tegale ay victoire yu leer saison bii. si affaire bi lëndëm ci des gisul dara. waaw Moustapha Gueye day ñëw jàpp ko këpp yalwaanam. waaw. booy ma lay jaar. waaw ñu delloo ziar bu wér Mouhamed la Mouhamed. waaw dinañ dellu parce que làmb ji léegi lu muy demee dafa yomb. gars yi léegi ay affaire de jàppale lañuy lañuy la ñuy wax waa te ñun demeewul noonu kii dafa prouvé dafa war bëre ay moromam ay ñoom cigiri na ñëw ñu bëre waaw ay alliance Baldé ay ay Laurent na ñëw na ñëw may booy bi sansam ragaluñ loolu waaw Laurent Ndiago su su bëggee troisième na ñëw billaay wallaay wa taalaay caacoo na ñëw bu Grand Dakar na ñëw day gën a metti caatu Medina na ñëw Sidi Buya Buya na ñëw day am défaite billaay wallaay na ñëw boo yooyu dañuy ni tàll dañuy ni xaalal ay yoon fii amul loolu ragoluñ loolu laa la wax nii ragaluñ loolu laa euh, wax nii na ñëw su ñëwee defet la ñuy am billaay walaay wa kii jàmbaar la defet la am laa lay wax nii kii dawul jàmbaar laa lay wax nii dama ne gars yi dawuñ jàmbaar kii jàmbaar la si biir jàmbaar yi billaay walaay billaay walaay ragaluñ loolu laa lay wax nii fii Grand la déggoo ma suñu deret tuuru moo ñu gënal suñu drapeau cuubu laa lay tegal nii laa lay wax nii Grand Yoff amul ragal billaay wallaay noonu la demee waa ñun pare nañ bu yàgg kii chaque jour day na sak fajar boo demee géej fa nga koy fekk jamono billaay wallaay ngoon dañuy dem saal ki borom doole la gars yi kaw nañ jël seen motukaay boy bi day ñew de billahi wallahi wa taalaay boy bi day ñew wa yow victoire ndam nga ne ma lan sa way neena neena ci kiri caacoo neena alliance Balde Laurent Ndiago ak Gouyenaar caatu Medina ñooñu la sax ñom ñen ñooñu ngay wax noonu buñ ko defé ben takusan ñom kaat ñu rangalé ma dalé ñun ñep té bu nekk non dama leen dama leen dakk bëre ñoo leen dàq bëri ëpp leen sañ-sañ ñi ma li maa leen dàq bëri te maa leen ëpp sañ-sañ mën nañ mën nañu rëy laami nii nii si signature nii nii mais jour géew gi nii maay dirigé ah. lu ko daree ci kiri mën nañu rëy laami avant avant géew gi maay dirigé lu ko daree ci kiri caat caatu Médina Laurent mooy loolu alliance Balde alliance Balde mooy jër bi Grand Yoff waaw Pikine Sikiri Caaco mooy derbi Grand Yoff Grand Dakar Grand Médina mooy derbi Médina Grand Dakar Grand Dakar eh, eh, Grand Yoff Grand Yoff eh, Laurent Ndiago derbi Diamaguène Grand Yoff Diamaguène kon yow ay derbi non non derbi laa man bu ma lu yomb man ay combat ay combat man sama combat lu ko del lu ko del sama premier yëpp ay combat yu métti sama dañ may tiim